neen leen une minute kon. deux secondes waaw xaaral ma vérifier waat sax may chiffre là parce que il faut que je sois très certain de ce que je dis. voilà kay ah tey bu kontaan rek xeetaan. lan la wolof ou français wala benn la. dégg mu wolof. taxala rek lu may commencé français euh, waaw commencé ci français waaw kenn na ma dimbali nag euh, question de lancement de ma débat alors allez-y question qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la régulation du doublon de votre candidat de votre présentation d'abord gars ñu ñu may ñu ab dégluwaay donne le top. Hein? Donne le top, 1, C'est bon pour tout le monde, Voilà, euh, présentez-vous s'il vous plaît. Euh, Mohamed Mouniroussi, mandataire national de John 2024, du candidat Mohamed Boun Abdallah John. Ah, Donc, euh, est-ce que vous pouvez retenir euh, par rapport à, à votre résultat euh, de parrainage Est-ce que votre candidat est passé ou vous, vous êtes récalé Euh, Alhamdulillah Rabbil Alamin, on remercie le Seigneur, on remercie euh, tous ceux qui ont été avec nous, qui ont prié. Et Alhamdulillah, leurs prières euh, ont été exaucées. Et le candidat Mohamed Boun Abdallah John passe, euh, on euh, sur les 44 231 qui Lors de notre premier dépôt, nous avions déjà régularisé les 11 régions sur 7 qui étaient requises. Et donc du coup, euh, le parrainage est derrière nous. Et nous voilà une nouvelle étape qui est ouverte. C'est l'étape de l'élection, avec la pré-campagne et la campagne. Et au nom de toute la coalition, nous remercions le candidat Mohamed Boun Abdallah pour la confiance placée en nous Mais nous voulons également euh, le féliciter parce qu'il avait cru en ça, il avait cru en nous et il n'a jamais euh, fait naître le moindre doute concernant son passage. Ce qu'on peut révéler aussi, ça montre que ce n'était pas facile et que Mohamed Boun Abdallah Dionne n'est le plan B de personne. Sinon, il serait passé dès le premier tour avec mention très honorable, avec les félicitations même de la commission. Mais on a vraiment trimé pour finalement avoir le résultat aujourd'hui qui n'était pas évident. Donc, encore une fois, c'est suite à un travail très sérieux, malgré les infiltrations de, du candidat du pouvoir qui est venu rentrer dans notre coalition, démarcher des délégués régionaux pour les déloger et les corrompre. au point d'en réussir 2 sur 14. Un autre qui avec nous, qui heureusement ne nous a rien servi, qui s'appelle Habib plus de 5 000 parrainages qu'on a de côté. Parce qu'après, il a été par le régime Donc ça prouve que Mohamed Boun Abdallah John, avec tous les gens qui sont de lui, ne sont le plan B de personne. On est le plan A et le plan Z de la coalition John 2024. Moi qui vous parle, j'étais conseiller de l'actuel Premier ministre. Dès qu'on a su que j'étais avec Mohamed Boun Abdallah Dionne, j'ai été licencié. Moustapha, Mohamed Moustapha Diagne, qui était à l'éducation nationale, ayant un poste de directeur là-bas, dès qu'il a montré qu'il était avec Mohamed Boun Abdallah Dionne, le lendemain il a été licencié. Ça prouve tout simplement que les Sénégalais doivent ouvrir leurs yeux et savoir que celui qui est distant vis-à-vis -vis de l'argent public, celui qui a été sérieux pendant cinq ans à servir exclusivement le Sénégal et rien que le Sénégal, c'est celui-là qui s'adresse à son peuple pour gérer bien en vue de réconcilier tous les Sénégalais entre eux, de réconcilier la jeunesse et l'institution étatique avec tous ces démembrements. Autrement dit, d'aller vers des compagnons et non vers des militants. Nous sommes une coalition nationale qui tend la main à tout le monde pour ensemble gagner ce pays et le gérer de manière optimale et de manière égalitaire pour que chacun trouve son compte dans cette nouvelle gestion et cette nouvelle gouvernance. La plupart, des mandataires, ils ont décrié juste le système de parrainage et surtout euh, ce qui concerne euh, le fichier électoral. Euh, est-ce qu'un sentiment partagé par la coalition Boun Abdallah 2024 euh, Je pense que le sentiment le plus partagé, le mieux partagé de cette période préélectorale, c'est le système de parrainage qui du tout ne tourne pas rond. Hmm. Tout le monde est unanime là-dessus. Il y a beaucoup de réformes à amener. Des réflexions sont en train d'être menées au sein de notre coalition. Et si Dieu nous donne le pouvoir, les premières réformes qu'on aura à mettre en place, c'est de revoir le système de parrainage. Dans toute sa globalité, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais nous la décrions du début à la fin. De la remise des fiches jusqu'à la proclamation définitive des résultat merci ñëw si olof par waaw kon ñu ngi sant yàlla bu baax man la Mouhamadou Mounirou Sy di coordonnateur national et mandataire national de la coalition Dionne 2024 bu Mouhamad Boun Abdallah jon ñun jaam rek la ñu woon ñu doon wuti tàllal loxo ñaar yàlla ak askan wi. yàlla ci mbaaxam may nañu ba ñu tàllalee ba léegi tëraluñu mënoon na ko def sonal luñu mënoon na ko def mais mu may ñu ñu ak suñu wér ak suñu xel ak équipe bi ñu àndal bi nga xamante ni ñoom ñëpp ku nekk président Mahammed Boun Abdallah Dionne moo la tànn pour nga dem daadaan kàddu askan wi ñu tàllal leen loxo ñoom itam ñu wuyu ñu ba lañ bëggoon ñu am ko ci li yoon wax ni gën gaa néew da nga ko war a am dem nañ ba romb loolu kon alhamdulilah rabil alamin Mahammed Boun Abdallah Dionne dina bokk ci candidat yi nga xamante ni ñooy joŋante élection yu ñu jëm ci 24 février 2000 25 février 2024. Euh, mu nekk nag loo xamante ni day wane ni ñun kenn ngeen muñu ci gannaaw am na ñuy ruumandaat di xalaat ni euh, bu dul kii kaa la ñun duñu kii duñu kaa. li koy firnde mooy bi ñu wootee sunu coalition bii dañoo yoon du yegg day wax rek ñu dawal ay fan sondage yi wane ni candidat bi candidat bu sérieux la te buñ moytuwul dina di problème ci ñi fi nekk ñu song sunu coalition dugg fa wax ak quatorze directeurs euh, euh, délégués régionaux yëpp ba ci man mii di coordonnateur ba am yuñ leen dig ci ay koppar yu takku ci ay post yu wóor ak ci ay suuf yu leen dig ndax ci laa bokk waaye dañoo xamul ni ay gor lañ ko amaloon xëy na nag am na ñoo xamante ni seen ngëm-ngëm tollul foofu ci fukk juróom yi ñu songoon ba boole ci sama soxna pour wax ak moom ni ko na wax ak ma bàyyi te gor laa amal affaire ndax Mahammed Boun Abdallah Dionne cinq ans la nekk premier ministre ñi xam ci réew mi ëpp nañ juróomi junni ñoo a mag ëpp ma xam-xam gën maa xarañ. mu bàyyi leen fa ni ma yow laay jël comme coordonnateur boobu euh, maanaam sas bu mu ma jox boobu charge bu mu ma jox jamais ma trompé ko jamais ma trahir ko ci lañu ñu lànk ba ñaar ci fukk ak ñeent ñooñu dem ànd ak moom waaye ñooñu seen liggéey tey wane na ni nax saay na ndax Kolda ka demoon tey Kolda moom lañ njëkk a validé Ndar ka demoon Ndar lañ njëkk a validé ñi ci des. ba ñu demee ba xamee seen pexe du jub ñu wut ay délégué yu yu nekkul suñuy délégué ni génn leen wax ni yéene délégué bu Louga yow yaay délégué bu bu Tamba te ñooñu duñ suñu délégué def nañ ko pour wax leen ni leen duñu plan B bu ñu doon plan B te bu njëkk ba lañuy ñuy jàll te bu ñu jàlloon dañ naan ah waxoon nañ leen ko waaye dañ ñoo recalé yóbbu ñu deuxième tour man ba man ba may nekk coordonnateur Mouhamed Boun Abdallah Dionne conseiller premier ministre Amadou Ba laa woon bañ ko yëgee jaar fa ñuy jaar pour ma bàyyi la may def ànd ak ñoom ma bañ ñu dàq ma noon lañ def Mouhamadou Moustapha Diagne bi newoon éducation nationale kon képp ku jàpp nii lii politique a jër lalu Mouhamed Boun Abdallah Dionne plan B la dangay ngay nax sa bopp amul lii firndeel nañu ko ndax deuxième tour bi yombul woon tey ku ne mën nañ laa recalé ndax 93 yi jàlloon yëpp la ñuy jëlaat seen doublon dugal ci biir yow nga nekkaat ñi la jiitoog ñi la ñàkk sa gannaaw yëpp dañuy boole xoolaat ba xam amoo ay doublon mais yàlla suturaal ñu bañ am lañ bëggoon kon ñi ngi gërëm Mouhamed Boun Abdallah Dionne ci kóolute bi ñu wóolu ba jox ñu lii. jërëjëf benn kaddu ci concernant fichier électoral bi. waaw fichier électoral du ma ci wax. parce que le problème n'est pas le fichier. c'est loin d'être le fichier man hmm. constitutionnaliste là j'enseigne le droit électoral les yeux fermés. ok le problème c'est du foofu système électoral bi la. ba ñuy jëlee fichier bi ba ba ñuy rendre les déci les les les résultats définitifs de l'élu foofu la affaire bi nag procédure bi yëpp la ñu war a xoolaat te bu ñuy yàlla mayee ba ñu jël réew mi ci réforme bi ñu njëkk taxawal ndax sénégalais bu ñuy voté dañu war a xam lan la ñuy voté ñu xam ni président du n'importe qui moo ko war a